ñoo ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi di Buzz 221 SD chaîne YouTube bi xew ci jamono bi leen di jox xibaar yu wéx te wóor ci tang tang ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñu vidéo Sénégal leen leen moma ñor moy sauver Afrique waxon na projet bi li ci gëna yombu li ci gëna gën moy kasso ah waaw yaakar na patriote dañu and dañu endurer avec endurance merci les patriotes merci la diaspora merci les immigrés, merci les imams, merci les Sérignes Dara, merci les femmes. Honorable député Kadigal, tàccul leen honorable député Cheikh Thioro Mbacké avec les bras lumineux na téléphone yi tàkk presse nationale et internationale nous ñu lay honorable vous avez la parole. Salam jërëjëf Salam salaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu bu baax ah, xanaa da ngeen di sonn bala maa tàmbali nag dama leen di jox am nouvelle bu neex yéen ñëpp pour ngeen déglu ma rek mooy weer wi feeñ na suba la ñu woor asalaamaaleykum waa Sadio maa ngi leen di nuyu tey nag sama xol dafa sedd bu baax a baax a baax a baax baax damaa bëgg seen bopp. déggu ma seen bopp bu baax a baax maa ngi jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Diomaye Diaw boo xamante ni am na tàmbalikaay mais amul yamukaay ndax kuy wër as gor boo jàppee Diomaye jërul ngay seeti kenn. te jàpp naa ne yéen waa Sadio li taxoon ngeen fal ko rëccu woo leen ndax biñ fi ñëw di campagne liñ daan gis ci mbooloo tey ji mooñu ñu teerawaat kon bu amoon ay regret heure bii doo leen taxaw fii ba heure bii kon monsieur le maire loo góorgóorlu woon war nga ko gën a yokk di gërëm waa coordination Pastef Sadio bi yëpp ci njiital Cheikh Niang ndax vraiment teeru bi ak tàgg-tàggal bi jégg na day wa trop te ànd na ak jogomaay te fakka soloo leen ko gunge ngeen ko ci lii ko waa saajo dégg te nii rek la ku gis politique gu Sénégal rawatina politique gu département Mbacké xam ne changement am na ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax li ñu xamoon ay politiciens yoo xamante ni dañ daan dundal politique mais daawul dundal seen gox loolu la ñu xamoon. yéen waa Sadio loolu ngeen xamoon ñun waa Mbacké loolu la ñu xamoon ñun waa Touba loolu la ñu xamoon mais avec Ousmane Sonko lépp dafa changé kon jàpp naa ne changement boobu la ñuy xaar ba le 24 mars ñu teg fa Bassirou Diomaye Diakhar fay mu soppi réew mi complètement ku gis coalition Diomaye li nga xam ne ay ndaw ñoo ci nekk ay ndaw yu engagé ay ndaw yu déterminé wu ndax suñu candidat ginnaaw beneen candidat bi yooyu bañ a tudd moo gën a nekk xale ci candidat yi boo ñëwee au niveau Touba directeur de bi gën a nekk xale ñun ñoo ko yor muy docteur Fall Mbaye ak Mouhamadou Lamine Bara Lo fàtte leen bu baax a baax a baax kon coalition bi ñu yor ndax am réew mënut a dox mukk te ay ndaw doxaluñ ko kon ñun ndaw yi nañ gën a jël suñuy responsabilité mag ñu gunge ñu ñu gañ réew mi soppi ko changement am na bu may ñëw Sadio damay am mbégte mais bu ma tegee coono bi damay tiit xam ne institut bi nekk Sénégal pour nga ñëw Sadio di nga xam dara ne Sénégal deux fois deux mesures lay doxe kon jàpp naa loolu il faut que ñu taxaw soppi amee indépendance ba léegi Sadio mënu am yoon bu baax boo xam ne diggante tey ak Sadio loolu dafa doon mu arrêté te yéen waa Sadio yéen ko mën a arrêté mënuñoo xool investissement bi nga xamante ni waa waa waa waa état Sénégal def nañ ko lu mat cinquante et quelques milliards ñu ne dañuy rek am ndox beneen dëkk jamono jooju Sadio Mara 60 ans meeg fi loolu est-ce que da ngeen koy nangu yéen waa Sadio kon li ngeen war a def yéen waa Sadio mooy xadd woote ji dama yaakaar dafa gën a guddi buñ installé bureau de wàllu yéen ñëpp da ngeen faa war a di ñëw Sadio biñ nekkee ci oto ba ni ñu egsee Sadio da koo jàmm da koo jàmbat xam na ne lii jaaduwul état Sénégal bu ma mënta ku tali kooku bu la diggee dara waxul dëgg du ko def. seen maire bii bi ko président Macky Sall recevoir da ne ko maa yor kudd ci waar gi boo ànd ak man ma sebal la monsieur le la tontu président Macky Sall mais kenn du ma santaat sama position ci maa ngi koy tànnal bopp. kon kuy wër bor na nga jàpp doo ko jàppee jur nga jàppaat keneen. xamne apart dem na de politique bi fi amone moy dug nga ay nit ñu falu dina faté lolu dafay jeex té yeen ñi yaakaar naa boo ko jeexalee mu jeex kon guddina té da nga war a defar karawaan ndax département bi ñoo seetaan kenn di fi lappi-lappi ndax du ñoo mom kon ku ñu ñëw rek dama yaakaar na ñu jëw kon képp ku ñu duggal la dañoo dégagé nga fi motax bu jóge war nga demaat Mbàkke rantalé ko dem Touba rantalé ko jóge ko dem ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko yoon wi métti na mais waruñoo tudd ba nelaw waruñoo yàndoor waruñoo lekk ba suur li ñu war a def mooy député politique yi xam ne nit ñi ki taxaw fii léegi doon exemple la ci tëj nañ ko 11 mois kaso te deful dara tëj nañ 1000 personnes 11 mois kaso deful dara kon loolu il faut que ñu taxaw séparé ko te jaakaar naa dara ko bare loolu ñu wootee Bassirou Diomaye Faye premier tour jox ko 75 pour cent yi nga xam ne ni président Ousmane Sonko mu seetlu moom la waxoon. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah.